Mbokui, Yeni organise organisé organiser événement te soxlay écran géant sen de jehna na gaw joko ak TV Nekeji ci Touba kudos. Xuddus jakarlo ak mbarmi 77 659 97 19 wala 76 846 44 19 ak Mouride TV sen chono Tak, na ci wuti fenen ay écran géant ci dimension bu